Bienvenue sur Salam Vision. mina shaytaani rajiim bismillahi wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad rasulillah sallallahu alayhi maa ngi nii dama doon julli julli naa ba pare lii du pour setal dama bëgg Sonko waat si téere pour nu wax ni Aliou waatoon na si téere kon lu mu wax dëgg la du benn dama jàpp julli maa ngi nii dama pare julli léegi léegi nii kaamil a ngi nii kaamil a ngi nii kaamil maam yàlla mi ngi nii teg naa sama loxo sonko bul waat dafa am lu tax nu la wax bul waat mais képp ku gëm sonko nga gëm dëgg te ngir yàlla rek tax nga gëm sonko tegal sa loxo si kaamil nga waat si place sonko maa ngi fas yéene waat si place Sonko maa ngi waat si yàlla ni Sonko mosul violé Adji Sarr maa ngi waat si yàlla ni Sonko duñ ko complot si axuraan laa teg loxo nii mi ngi nii si axuraan laa teg loxo nii di waat Sonko mosul violé Adji Sarr waat naa ko si yàlla. ni Sonko mosul violé Adji Sarr waat ko si yàlla ni Sonko duñ ko comploté Adji Sarr képp koo xam ne gëm nga li Adji Sarr wax defal man li ma def nii nga teg sa loxo si kaamil yàlla alxuraan nga waat ni ma waate nii nga waat si li ngeen tuumal Sonko teg naa sama loxo si kaamil maam yàlla Sonko violewul kenn violewul Adji Sonko dañ ko comploter asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatu képp koo xam ne nag soppee Sonko nga bu la am loolu looy léegi ragal waatal nga partagé ko sama vidéo bi boo leen bul waat waatal nan la lii nii pour Aliou Sall la nii bu waatal nan la mi ngi nii waaw son kaamil la nekk nii alxuraanul karim waaw assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahu akbar allah wahidun